koppal koppar gi nga xamante ni nag lewul doon na li nga xamante ni ñu ngi koy jànkonteel ay ati ati at fii nag ci Afrique rawatina ci bi ñu dëkkee ngir nag ñu daal di ciy àndi ay saafara faaw ñu daal di ciy amal jàngat bu amul nëpp nëppal loole nag la soxna may a Mbàkke daal di amal. tax nañu daal di am xam-xam gu bari ci wàll wi duñu jàppale itam ñu daal di koy xeex. mu daal di koy tënk ci ñaari volume livre bi nag daal di ñëw ci jamono ji nga xamante ni nag fii ci Sénégal ñoo ngi fësal ay rapport yu tukki ci bànqaas yi ko war a saytu ngir loolee lépp mën a jaar yoon faw rek ñu daal di ñoŋal taxawaay bi ci wàllum yoon ak yoonal. doxantul ci biir Ndakaaru walla sax ci yeneen capital yu fare fii ci e mois di nga gis ni immeuble yi foo tourné daal di koy gis te ñu bëri mënuñu loo wax fa mu jóge ak ñi ko amal ndax am nañ koppar googe xaatim bi dëkk yu bokk UEMOA daal di amaloo nag lu bari nag daal di nañ koy amal ba ngir mën a moytu li ni mel wante nag ak jamono fi mu toll ak xarañaayu ñi nga xamante ni nag def lu bon moo leen tax a jóg taxawaay bu yees doon sàkku teef. bu yàggu rek 2023 yaa na beneen directive bu UEMOA yi war nañu ay loi pour euh, adopter xam naa fii ay at fii ñaari at ñetti at dana amati beneen directeur bu affaire daal xeex boo xam ne day ci jamono ji nga xamante ne nag ñoo ngi wax daal di moom suñu bopp ci wàllum koom espace UEMOA nag koppar gu bari moo ngi fiy jóge di dem feneen ndax niñ koy lewalee bu ñu sukkandikoo ci kàngam ñi nga xamante nag seen xam-xam màcc na si li mel nag faaw ñu daal di jëmmal ay bànqaas yi nga xamante ni nag ñoom ñoo ciy bàyyi seen xel ba ku def lu warul ñu daal di lay teg loxo.